fële ca euh, Tëngéej je pense que loolu jaru sax ñu koy teg parce que moom euh, defaat na ko léegi euh, sur les lieux Khadil la dernière information c'est c'est c'est peut-être benn image boo xamante ni dama bëgg suñu ñaari invité yi ñoom ñu wax ma ci qui est le meilleur président de l'histoire du Sénégal et pourquoi juste en trente secondes entre Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf suñu maam Abdoulaye Wade ak le nouveau président du Sénégal maître son excellence de président Macky Sall euh, monsieur Senghor kan moo si euh, selon yow euh, le meilleur président de l'histoire du Sénégal ak lan moo tax. waa état daal c'est une continuité. Mhm. xam naa ne Léopold Sédar Senghor a créé l'état administration bi Abdou Diouf moo ko def les structures Ablaye Wade moo ko indi vision bi Macky moo ko taxawal. Mhm. donc je crois que kenn ku nekk yaa ngi def la nga war a def. Mhm. Sénégalais yi nag ñoo war a def li ñu war a def. mooy ñu xam ne réew mi ku fi nekk mandat bi nga ko yoree dafa am liggéey boo xam ne mooy construction nationale nit ñi dañ la cee war a jàppale mais sooy gas nit ñi waruñu suul parce que jamono euh, bi nga xamee ne la fi Léopold nekkoon booba Afrique tumuranke woon na ci àdduna bi problème mu culture problème mu taxawaayu nit ku ñuul ci àdduna bi moom lañ doon laaj moom lañ bëggoon ak réew mi taxaw ñu xam ne Sénégal réew la bu am indépendance buy dogalal boppam. mais qui est le meilleur pour toi un nom man mënu ma wax kan mooy le meilleur man je dis dama ne succession la kenn ku nekk tabax la. Mm. yow mënoo ñuy tabax benn batiment teg benn mur nga ñëw naan ma quelle est la meilleure brique. Mm. mën naa ne batiment bi mur bi taxawaay bi rafet na. Mm. waaye su ma nee brique bi moo gën a rafet amul sens. xaw nga réew mi li ñuy soxla ku fi ñëw la nga war a def def ko. population bi dimbale la ci liggéey bi ngay liggéey ndax Sénégal mën a avancé suba kenn ku ñëw nga mën a yokk ci sa brique. Hmm. waaye kii moo gën kii moom moom tànn sa bu la neex la ku ko def itam def nga la la neex rek. Hmm. waaye li ma xam daal mooy kenn ku nekk liggéey nga sa jamono. Hmm. Ablaye Wade moo fi indi vision ñu indi fi tabax ay mbedd tabax ay pont tabax ay autoroute mu ñëw loolu mu ànd ak président Macky Sall. mu xam ne lu gën ci réew mi la mi ngi mottali réew mi te affaire boobu mi ngi dox ndax keroog président de Bénin bi mu ñëwee Bénin ba mu ñibbee dafa yónni ministère am de structure ne ko demal ma Sénégal nga laajal ma ñoom naka la ñu mën a liggéeyee ba taxawal liggéey bi ci Afrique ba nekk royukaayu Afrique. Mhm. loolu moo am sens ci réew mi. Mhm. waaye affaire wu wujjeel moom suñu yeboo bañ ko dugal ci suñ biir. yéen ñii di nekk fii de suñu ma laajoon yii kan moo gën a nekk journaliste. dama leen di dama damay tàggalee dama leen di tàggale wala ñun ñuy wax ñu juyoo te loolu loolu baaxul mhm. man dama yaakaar ne soo gisee jataay mhm. nit ñëpp toog kenn ku nekk rek nañ seet li gën a rafet ci yow ñu ne lii yaak fi def mhm. suñu defee loolu réew mi ëllëg nit ngi dañ ci mën a jariñu ah, waaye suñu bëggee seet kii moo gën diw kii moo defoon lu bon te kooku wéy na mënatut a ñëw. Mm. mënatut a rectifier li mu defoon. d'accord loolu du yóbbale. askan kanam maam Ngor peut euh, rapidement euh, ci ñeenti euh, président yi ma lim léegi kan nga jàpp ni moom moo yoroon la meilleure gestion quand même de ce pays. Ah, man de pour man de Macky Sall mii li mu fi def ah président du ko fi gaaw a defaat dafa liggéey de. Mm. Macky Sall liggéey na liggéey bu Abdoulaye Wade jàmbaar la moo wane vision bi tout xam mais Macky Sall li mu réalisé ci temps bi li mu liggéey. soo dee génn di dem di ñëw di nga xam ni jàmbaar la. Hmm. Macky moom li mu liggéey. xaw ma ndax dinañ amaat président bu ko liggéey de waaye bala ngaa def. man sama question day dem ci yéen ñaar ñi. Hmm. est que kon président Macky mun na am troisième mandat ou pas. man laaj moom laay woteel. bu ko man dama ne du ma ko wax. parce que moom nee na du wax troisième mandat. nee na Sénégalais yi dañ ko doon ko yow dañ laa fal pour juróomi at. waaw juróomi at ñi liggéeyal ñu réew mi. suñu dee bu juróomi at yi jeex nag ñu laaj ko yow dox da ngay bëgg wala dangaa taxaw wala dematuloo ñu door a xool ndax moom war na am wala warta am mais nit ki suy liggéey muy daw gannaan ko eh geestul ñu ma xool ndax sa kanam tax na suuf wala déet eh, geestul ma xam ne sa kanam leer na loolu du yóbbu réew mi kanam nañu bàyyi loo xam ne jotagul nañu bàyyi loo xam ne jotagul ngeen ngeen ñëw di ko teg. man nag moom bu bu leen tardeel bu leen tardeel réew bi. <laughs> réew bi gis nga nit ku si nit ku si liggéey. monsieur le ministre tardeel réew bi weesuwul boo ne woon déedéet ñëpp ñëpp teg débat bi. nga ne su ma noonu. pa pa pa yow je veux dire tardeel réew mi weesuwul ki nga xamante ne bu ne woon déedéet du ma ut troisième mandat ñëpp teg ñëpp teg débat bi pour pour ñu bañ a tardeel nit yi comme vous venez de le dire. loo loo loo reere tey. quel est le rapport. ah mu nga <coughs> yow léegi nga sax nangu ko wax nangu kii <laughs> non attends attends gis nga nañu xool kenn ko non amul rapport je suis désolé la parce que li mu reeree nanguwuñu ko wax ñu dégg ko kon nag li nekk ci président Macky Sall te nga xam ne jotagul ça n'a rien à voir je suis désolé ça n'a rien à voir c'est la même chose gis nga ma ko bàyyi nañu bàyyi ak diggante ak doomu aadama yi mooy technique ki loo xam ne yow loo ko ban question. troisième mandat xam nga tax ma gêné ma man dama ne dañuy man dama ne xam tax mu gêné ma dama ne ñun dañuy liggéey Sénégal ki fi nekk dañ ko sas. Hmm. ne ko yow mandaa bi juróomi at la liggéeyal ñu mandat bi ba bi jeex. donc su ngeen di indi muy liggéey ngeen gis ni mu liggéey ci réew mi yëpp foo dem nga gis fi loo xam ne mosoo ko woon a gis ñi nga xam ne sax dañoo nekk diaspora su ñëwee Sénégal dañuy waaru yéen ngeen bëgg. alors ñuy wax loo xam daf ñuy tàndeel président ci euh, euh, premier ministre nu mu di euh, chancelier bu bu bu Allemagne mhm. def na fukki at ak juróom-ñett kii nu mu tudd la dame de fer la Angleterre def na plus de trois mandats Europe ñëpp def ñëpp ñoo def ay ñi ay dix ans ñi ay vingt ans ñi ay trente ans kenn jéemu koo set xam nga européens yi dañu yàpp. mais contexte yi defal naan rek européens yi européens yi dañu yàpp ñun dañu yàpp suñu bopp. Hmm. parce que loo xam ne ñoom duñ ko def ci suñu seen réew yi ñëw di ko imposer ñëw di ko imposer Afrique xoolal ma ci Afrique football bi pays boo xam ne fédération bi état bi dugg na ci dañ laa dañ la dañ la sanctionné ñaata la ñu sanctionné FIFA boppam dàq ñu URSS ah compétition yi am ren yëpp dàq ñu ne ci loolu du politique. c'est-à-dire nañu am suñu fayda bopp gouverner notre pays par nous-mêmes et pour nous-mêmes cette question mais mënuñu gouverner monsieur le ministre cette question hmm. je pense que amul benn influence boo xam ne dafay jógee amul ci réew question boobu jëm ci troisième mandat du influence bu ci réew laissez-moi s'il vous plaît terminer ma question euh, dañu ko wax fii ci Sénégal ñu dem ba yóbbu mbir yi ci conseil constitutionnel jëm ci wàññi mandat bi ñu wax limitation des mandats foofu loolu moo tax ñu lay laaj sa xalaat parce que mbir mi li tax on pose le débat mooy autant ñenn ñi di ko wax ñuy gis ne dañ leen di dindi ci seen ay poste ci ñoo xam ne mën nañu leen lim ci loo xam ne dañu ko tudd ci troisième mandat ñeneen ñi koy wax ne il a droit à un troisième mandat à une troisième candidature ils ne sont pas inquiétés d'où la question ndax yow danga jàpp ne moom war na mën a sampaat ndëndëm pour une troisième fois wala jàpp Moustapha Sy Moustapha Sy doomu Cheikh Tidiane Sy dafa waxoon ne wax dañ koy wax heure bañ ko war a waxee ak fañ ko war a waxee loi bi dafa leer candidature ñu ngi koy déposé mhm. su defee ñetti weer ci juróom benn weer yi lañ koy déposé donc wax jee jotagul fañ ko war a waxee jotagul léegi président Macky Sall li ñu ko sant li ñu sant Sénégalais yi mooy na liggéey ba waxtu wa jot parce que li ngeen bëgg nag nga ne léegi bi nga wax Moustapha Sy da ne Moustapha Sy doomu Cheikh Tidiane Sy waaw ma gis ne bi nga ko wax da leen a sàllalu ñoom ñaar mais bi nga ñëw ba ci président waaw mais bi nga ñëw non mais bi nga ñëw ci Macky Sall donc ni président de la République. bu ay affaire diine ak ak ak ay affaire xam nga yéen. bu defal non defal ndànk rek. non ah nit day maandu. déedéet non nit day nit day parce que lu tax nga jox président de la République cër bu toll noonu. nit day maandu defal ndànk non du maandu de. président de la République dañ ko élire. waaw Sénégal yëpp wootee ñu élire ko tax yaay président de la République su ma koy wax dama naan ko président de la République Moustapha Sy bëgg naa ko lool euh, sama frère la sama lépp la mais du président de la République. Moustapha Sy bëgg naa ko lool. mais li mu nekk yàllaa lan li mu nekk. yàlla la parce que yéen da ngeen gis nga nag lii moo yàq Sénégal gis nga débat yi dañ koy yóbbu dañ koy yóbbu foo xam ne waru ko dem yow gënoo maa nekk wuyu ma xoolal jox ko or ma wuyu ma dafa nàkk nekk Tidiane ma dara ci yoon wi euh, Moustapha Sy ni nga mel ci moom peut-être moom laa mel ci moom man sa moom frère Moustapha Sy dama daan ànd ak moom ak Abdoulaye Wade boo gënoo nekk xale donc su ma neexee ne ko Moustapha Sy sàllu ko dégg nga mais nit day maandu. maandu dafa baax ci doomu aadama. orma bi la xadi doxalal noonu ak nit ñi du jaxase de mais orma bi nga joxe ko orma bi kase. Moustapha Sy Moustapha Sy laa koy wooyee. maa ne ko Moustapha Sy. ndeysaan do bu Sénégal yi xam ko. su ma neexee tam ma ne ko Serigne Moustapha Sy. waaw boobu gën a rafet mais bu leen di boole nit ak nit ñi nit day maandu. day maandu ku bokk yow lépp bokk yow euh, tarixa bi. taxaw naa foo xam ne. Alors, je, je pense qu'on va passer à la question de de Ndeye Di Maître. Actualité bi dégg nañ ko.